Abdoulaye Wade jiite woon cadre libéraux yi muy maître Cheikh Touré ñu ngi lay nuyu euh, jiite woon nga itam euh, yeneen i bërëbu liggéeyukaay yoo xam ne ci administration la nekk euh, dinañu ci ñëw ci biir waxtaan bi ñu ngi lay nuyu maître Cheikh Touré am mbégte dalal la ci démb ak tey. maa leen di gërëm di leen remercier di leen xamal ni lii nga xamante ni mooy PDS dëgg la maa fa dugg en moment bi nga xamante dafa amoon tournant. Hmm. waaye lépp loo xamante ne nii nekk na ci. vivre naa ko xam naa ko te incha allah question boo ma ci posé rek incha allah dinaa la tontu. Hmm. di rafetlu et di leen encourager ci liggéey bi ngeen di def. Hmm. xam na ni seen rajo bi rajo professionnel la. te képp ku ngeen woo rek day nekk loo xamante ni da koy bëggee. jërëjëf euh, Touré ñun itam mbégte bu rëy la ñu am euh, si dalal si si démb tey muy ñaareelu waxtaan bi ñu bi ñu mës a sekk euh, ci émission bi tey nag ñu war a waxtaanee parti démocratique sénégalais est-ce que mun nga ñu ñëwal ci circonstances yi ko président Abdoulaye Wade taxawalee woon 31 juillet 1974. voilà bi nga xamante ne ni 1974 li taxoon Abdoulaye Wade créé parti bi dafa nekkoon Abdoulaye Wade PS la woon bi mu nekkee PS. ñu dem élection mook euh, Djibril Pap Djibril Ndiogu Fall nekkoon euh, koo xamante ni ku am tur la woon ci PDS ci ci PS ba ñu demee élection après euh, Ablaye Wade gagné ñu jël élection yi contourné ko daal ni Djibril Ndiogu Fall transporteur moo ko gagné Ablaye Wade nag am lu ko naqari lool lool lool lool léegi nag mu nekkoon expert également OUA bu lekk bu à l'époque ba nga xamante ni nekk expert bi nga xamante ne ni Senghor euh, ma nga fa woon donc euh, ñu dem ba nga xamante ne ni ñu ngi ñibbisi ci avion bi mu ne Senghor dama bëgg créer benn parti euh, au Sénégal kooku naan kooku daal di ne ko parti Sénégal mënul ne Euh, mu ne ko mais li tax lan moo la ci affaire parti mu daal di ne tout simplement parti de contribution lay doon Senghor daal di ne ko ah mu ne ko way mu ne loolu day tax Sénégal ñu ràññee ko mu nekk une démocratie boo xamante ne nii euh, Sénégal yëpp dañ koy naw loolu daal moo permettre oon Ablaye Wade mu dugg bi ñu xamante ne nii nag waxtaan na ak Senghor léegi nag euh, bi mu ñëwee ah ñu def déclaration bi après ñu commencé nag mettre sur pied le le parti démocratique sénégalais. ba nga xamante ni loolu am na ñu def première conférence conférence bi nag ñu ngi ko defee woon euh, à Dakar bañ ko defee Dakar mu nekk euh, conférence boo xamante ne nii Abdoulaye Wade dafa déclarer ni euh, day créer parti. démo day day parti créer parti te mu ngi koy tuddee parti démocratique sénégalais. Mm-hmm. kooku c'est en 74 en 76 ñu def seen premier congrès à Kaolack ñu posé leen indi leen problème yu dul jeex mu nekk loo xamante ne nii finalement euh, parti socialiste te pas habitué à ça hmm. donc ñu indi leen problème yu dul jeex mais mujj nañu effectivement ci con ci congrès boobu premier congrès bi nekk à Kaolack hmm. ci la ñu créé parti démocratique sénégalais hmm. loolu moo ci nekk. Mhm. parti démocratique sénégalais daal di taxaw waaye la ca kanam du yomb euh, ci président de la république euh, ba woon euh, maître Abdoulaye Wade xëy na mhm. parti de contribution la waxoon Senghor ba mu yegg ci taxawal ko waaye ginnaaw gi mujj nañu ko jàppee wujju ay jafe-jafe itam ak i gàllankoor PDS am ko est-ce que mën nga ñu ñëwal ci épisode yooyu. waaw mu nekk problème yu doy waar. parce que def nañ ci à premier ay élection élection yi mu nekk ay élection yoo xamante ne nii boobu kenn xamul woon ay isoloir rek ay bulletins secret mu nekk euh, situation bu doy waar je me rappelle même à l'époque bi ñu demee élection après euh, Abdoulaye Wade am groupe parlementaire mais sëgam groupe parlementaire bi dafa nekkoon loo xamante ne nii Euh, comment dirais-je euh, dixième bi la te mu amoon Laye Diop Diatta nekkoon ci te bu ko dépassé Laye Diop Diatta day nekk député ñu yemale ko ci vingt mais à l'époque PDS amoon na vingt quatre députés mais dañ ko mujjee yemale vingt loolu mooy situation bi mais tournant bi gën a mag a mag mag ci en dehors création be euh, ak yi ci nekk mooy quatre vingt huit quatre vingt huit nag dafa nekk loo xamante ne nii dafa spécial parce que dañu dem ab Ablaye Wade gagné élection yi ba mu ko ab euh, Abdou Diouf xamal ko ni ko euh, gagné woo élection yi contourner situation bi ñun ñi nga xamante ni ay jeunes la ñu woon Ablaye Wade def appel ñu jël ko tëj ko prison ci la ñu génne ñun taxaw en 1988 population bi génn boobu nekkuñu woon sax ci parti politique commencé nag euh, di xeex pour ab lay Wade ñu accuser nu Euh, de tout man boobu euh, je venais de France euh, def sama troisième cycle en transport et logistique daal di ñëw nag ñu dénk ma ma nekk ci travaux publics en même temps direction générale des transports hmm. ñu ne cadre bu toll nii nekk fi automatiquement PS di ma indil problème yu doy waar. waaw loolu mooy li nga xamante ni moo ci am léegi nag bi nga xamante ni dugg nañu di xeex di xeex di xeex. ba nga xamante ne ni euh, Abdoulaye euh, Abdou Diouf reculé na ci la benn benn responsable politique ñu Adja Cumbe caam moo jur Ablaye Faye yàlla na ko yàlla xaaree àjjana euh, Ablaye Faye effectivement mu ñu tëjoon ko ablay Wade biñ ñu ko génnee après ñu ànd ab maire Cumbe Thiam boobu nekk yaayam dem seeti Ablaye Wade Ablaye Wade ne nu waaw yéen fu ngeen nekk ak lu ngeen bokk ma ne ñu ne ko élection dañ ci dem nga gagné ko mais Abdou Diouf nanguwu ko moo tax population bi génn pour di ko wan ne ko lii nga nekk du dëkk. Hmm. loolu moo tax ñu indi xeex bi et tout ça mu ne vraiment c'est extraordinaire foofu nag la suñu militantisme dëgg-dëgg commencé en hmm. waaw. ban tournant moo fa amoon justement yaa ngi wax ne bi ngay rejoindre PDS justement si si jamonoy tournant la woon maanaam muy situation bu particulière xëy na voilà particulière parce que déjà dañ doon wax euh, Euh, Ablaye Wade xam nga bu fekkee da nga créer parti d'opposition te Afrique yëpp France colonie bi mu yoroon yëpp daf leen euh, téye ci loxo. Hmm. ñu bloqué lépp lu bokk ci processus démocratique léegi Ablaye Wade bi mu ñëwee créer parti bi France àndu ci woon léegi nag ñu laa di ne euh, Ablaye Wade France aussi di jàppale parti socialiste bon léegi nag li tax ma ne tournant parce que parti socialiste da doon wax voilà. PDS ngi nekk fii di perturber parti la boo xamante ne nii amul am amul ay cadre amul ay syndicat yi ànduñoo ak ñoom ñun moom rek la ñu àndal. Mm-hmm. bi loolu amee ma daal di euh, ne Abdoulaye Wade mu ne ma ah ma ne nañ créer li nga xamante ne nii parce que parti bi ak li muy mag yëpp amul benn cadre bu ci nekk. mu ne cadre yi naka lañ koy créer ma ne ko daal da ngay def benn congrès mais dangay def benn appel. Mm. comme ça woo cadre Sénégal yi man en tant que cadre je suis prêt le à ko. noonu la ñu créer coordination des cadres du PDS. beneen tournant bi mooy syndicalistes yi sëñ da doon wax ni syndicalistes yi ànduñu ak moom. Hmm. ñu am benn enseignant boo xamante ni bu xare la moom it tudd Ibru Diouf ñoo ko bàyyi créer hmm. euh, syndicat enseignant yi. donc ñaari tournant yooyu PDS am ko cadre yi mu am loo xamante ni cadre yi nekk nañ ci ak loo xamante ne comment dirais-je syndicat syndicat yi nekk na ci. Mhm. loolu moo nekk loo xam daf ko impulsé changer donne yi ñuy xeex ba finalement ni ñu accès au pouvoir. Mhm. PDS biñ ko créé ba 88 boobu ngay wax ni ci ngeen créé coordination des cadres ak syndicats euh, libéraux yi. Euh, ban changement la indi si seen politique bi lan lan lu bees la PDS ñëw indi ci wàllu politique ci Sénégal ba mu juddoo. d'accord parce que ñoom déjà au départ dañ doon wax le PDS Abdoulaye Wade c'est des perturbateurs amuñu kenn ku ànd ak ñoom. Hmm. les cadres na nekkuñu ci en plus ça les travailleurs au temps de Madji Diop sont avec le PS kon boog Abdoulaye Wade nekk na koo xamante ne nii vraiment perturbateur la kenn àndul ak moom. ah bi nga xamee si rencontré na à l'époque euh, comment dirais-je les responsables politiques de la France defe naa Jacques Chirac ñooy que mais Abdoulaye Wade vous êtes là di créer parti di perturber ah nag ngay créer parti tu n'as que des paysans tu n'as pas les intellectuels kooku daal ne ko non man j'ai les intellectuels parce que tous les cadres du Sénégal sont avec moi hmm. ah ñu ne ko ah bon mu ne ko waaw ñu ne ko kooku est-ce que mën nga ko prouver bon ci la ma Ablaye Wade euh, woowee ne ma léegi sa coordination des cadres la ñaata ngeen ma ne ko on est plus de trois cents j'ai créé des commissions techniques yoo xamante ne nii euh, comment dirais-je tous les dossiers sont là mu ne ma kon da koy def jëlal tous les dossiers nga yóbbu ko ambassade de France euh, booba y avait comment dirais-je Ngom et tout noonu doon jëlee tous les documents les syndicats euh, les kii les cadres yóbbu ko ambassade de France bi ko jote jotee ci la expliqué daal ne mais eh, Abdou Diouf yow tu dis que les cadres ne sont pas avec lui mais il y a un certain certain Cheikh Tidiane Touré qui a fait ses études ici qui a son troisième cycle en logistique et transport ya y a d'autres cadres, ainsi de suite, qui sont là. Et puis, y avait donc euh, Macky Sall qui vient de boobu pareegul woon ay études et tout cela donc kii daal vraiment euh, c'est des gens valables et sur le plan professionnel on a vu également les, les enseignants avec Ibrahima Diouf ñoo ko bàyyi existé na ñu ngi nii kon il faut impérativement ñu ñu jéem a xool naka lañ koy lijjante ci la américains yi génnee le sharing power le sharing power dafa am benn système boo xamante ne mooy bu fekkee dem ga élection Abdou Diouf par exemple la am quatre vingt pour cent mu am vingt pour cent yu àndul ak moom kon vingt pour cent yu au lieu ñu leen di bàyyi ci opposition dañ leen di intégrer dans un gouvernement d'union nationale boo xamante ni ça permet automatiquement le pouvoir et l'opposition bokk ci même combat mais bu élection amee ku nekk day dem se yoon voilà en fin de compte tournant bi nga xamante ni mm-hmm. moo ñu continuer di ko xeex ba ñu mën code électoral bu disponible ay tout cela mhm. daal di euh, di reconnaître euh, comment dirais-je booy def élection euh, bu njëkk ba amuloon carte d'identité am na ñu bari sax ñoo xam dañu naan wote naa te inscrire sur la liste et tout cela ñu régulariser tout cela par le ministre de l'Intérieur ak les toutes les bonnes volontés looloo tax ma tournant la mhm. et c'est ça qui nous a finalement mené euh, comment je que Ablaye Wade kon daal Ablaye Wade ak PDS indi nañu ay changement yu bëri peut-être provoqué ay avancées ci wàllu démocratie ak euh, yu ni mel euh, ci Sénégal euh, à travers justement création parti démocratique sénégalais bu ñu la déggee. wala non seulement indi na ko mais dafa nekk la base. te xam nga Sénégal à l'époque sëgam Afrique yëpp kenn xamul woon sax démocratie naka lay doxee. Hmm. bi ñu gisee Sénégal organiser lool ñu regrouper les cadres. ñu def ay élections. peuple bi génn daal ne élection yi dañ ko sàcc ainsi de suite et tout ça mu nekk xeex bu méttee métti en ce moment donc Abdou Diouf def recul pour accepter euh, consensus pour ñu def ay code électoral et tout ça dafa nekk tache d'huile au niveau de l'Afrique mm. donc loolu mooy liggéeyu Ablaye Wade je peux dire que kon Ablaye Wade démocratie en Afrique moo nekk loo xamante ne nii moo ci nekk léegi nag mu des une chose ah Senghor bi mu gisee affaire yi mu nekkoon taxawal xam nan la ñuy def léegi nañu créer des courants politiques mu daal ne bon ñun on est socialiste Mazemou Diop yéen vous êtes des communistes Ablaye Wade yow tu vas être comment les tu da ngay nekk ci libéro yi ba pare mu am société euh, civile également ñu nekk quatre courant yoo xam ne dinañ dinañ mën a évoluer Ablaye Wade nag sëgam moom il était il était plus ou moins socialiste. Mm. mais on l'a pas nee euh, nañ socialiste bi euh, comment dire moom. Hmm. léegi da ngay jël les les les libéraux. et boo ko jëlul automatiquement euh, am ay problème ñu indi ko ci problème yu mag. Hmm. ci la accepté nag nekk un libéral ñu loolu mu indi le fond du problème mais euh, Ablaye Wade il était socialiste de fond d'ailleurs toutes ces politiques la avancé yi mu def yëpp c'était plus ou moins lié au socialisme. Hmm. léegi nag bi ko joxee nag. Euh, permettrait léegi ñu reconnaître que comme un libéral ci la commencé nag nekk à l'international libéral diffuser ko mu a beneen tache d'huile au niveau de l'Afrique mm-hmm. beaucoup de pays ñëw nekk comment dirais-je des libéraux donc je peux dire que la démocratie la base de démocratie bi am effectivement c'est Abdoulaye qui a été à la base de tout mm-hmm. ça yan euh, moment particulier ngeen dund ci parti démocratique sénégalais euh, ci période boobu yoo xam ne xëy na ay gàllankoor la woon wala ay ndëgg sërë ndax euh, finalement dafa mel ni ñi fi nekkoon nguur demoon nañu ba regretter le fait que ñu ñu mayoon Ablaye Wade mu taxawal partem ndax comme ni nga doon waxee ñi ngi ñi ngi doon kay jiiñ ni dafa doon perturbé ak xëy na indil ay jafe-jafe nguur gi fi nekkoon voilà loolu loolu effectivement dafa nekkoon euh, une situation boo xamante ne nii même au sein du parti socialiste il ne comprenait pas nee nañu pourquoi Senghor di accepter lii. Mm. te Senghor aussi le fait que mu créer les quatre courants quatre courants yooyu effectivement critiqué woon nañ ko mais actuellement boo tolloo dañuy wax mais quatre courants yooyu est-ce que mënuñu ko woon maintenir kon en fin de compte. au lieu on se retrouve tey jii bi ñu démocratiser les partis ñu nekk ay trois cent et quelques partis. Mm-hmm. kon quatre courants de parti rek mooy am au Sénégal. Mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ni mooy fondamental bi. de l' côté également euh, mu nekk loo xamante ne nii euh, une situation un peu plus ou moins compliquée parce que euh, démocratie bi euh, comment dirais-je ni ko ni ko ni ko ni ko africain yi jëlee woon mais c' est que Sénégal dafa yàgg di voter di voter di voter yoo xamante ne nii donc démocratie amoon na bi mais toujours c'était une démocratie boo xam ne d'une manière ou d'une autre da doon euh, débuter vous comprenez donc on le maîtrisait vraiment maintenant euh, il est évident bi nga xamante ne nii nag Ablaye Wade créé na les courants là les euh, les courants les points extrêmement importants am les cadres d'un côté am les populations de l'autre am les enseignants donc mu xam ne léegi pilier démocratie bi taxaw na léegi nag avec le sharing power il a pu obtenir beaucoup d'avancées démocratiques te qu'on le veuille ou non Abdou Diouf euh, euh, était très dur très sévère mm. et puis euh, dañuy jékki-jékki rek organiser benn affaire daal di ne voilà parti démocratique sénégalais moo ko def. comme lan je, je vous rappelle par exemple comme comme comme les voitures piégées. Hmm. amoon na moment boo xam ne c'était la première fois ñu créer des voitures piégées. piégé yi oto yi di exploser di toj. ñan ñoo ko defoon. waaw ñu ne nag léegi kooku kii nga xam ne ñoo ko def c'est les cadres du PDS ah, ki nekk en tête mooy Cheikh Tidiane Touré c'est quelqu'un boo xam c'est un logisticien te la logistique on l'utilisait en termes de, de de guerre il n'avait pas compris que la logistique on l'avait utilisée dans le cadre commercial pour pouvoir déplacer les conteneurs d'une manière très rapide parce que avant la logistique c'était pour permettre l'armée de pouvoir positionner ses bu ñu nee nii rek automatiquement ñu mën a nekk un peu partout léegi nag loolu la ñu jël daal ne sëñoom man je suis euh, docteur en logistique et transport donc man maa créer donc euh, dynamisme parce que système bi ñu indi woon bu ñu doon xeex ak alkaati dafa am stratégie bu ñu doon def ñu ne kii mënul génn ci keneen koo xamante ne nii kii nag c'est comme ça qu'ils nous ont euh, identifié ñëw jàpp ma ne ma nag monsieur Touré yow ndekete tu es un homme de guerre il n'avait rien compris man ak Pape Samba Mboup et tout mhm. cela ils nous ont mis en prison ah daal di ñëw téye ñu foofu ah, di ñu poser ay question même alkaati yi sax bi ñu poser question bi ma leen di expliquer euh, qu'est-ce que c'est que la logistique dugg dans le terme commercial ma exemple boo amee un conteneur ici di ko war a indi Sénégal ainsi de suite par partie bi ngay jëlee tout ça ñu ne leen ñu ne ñun xamuñu loolu. te yow expert nga ci loolu justement. expert laa ci. di mm. leen expliquer ne loolu la ça quelqu'un qui veut faire la guerre et tout ça, moi je ne suis pas militaire mm. et tout ça. Donc c'est cette confusion-là qu'ils avaient et puis automatiquement ils nous ont mis en prison. Donc euh, mouvement bi continuer et puis ñu ñu dem nañu daal la police et tout ça comprendre ne kii c'est une euh, matière bu bees la te hmm. monsieur Touré bi mu koy jàng c'était pas pour faire le kii il sait que ni le Sénégal était en recul par rapport au transport et tout hmm. cela mu def ko spécialisé au lieu mu toog France mu ñibbisi te à l'époque même Air France jëloon na ko mais ni ma gisee woon ni tabax tali yi di ko lijjanti en PS di sàcc xaalis bi tali boo tabax un an mu yàqu et tout cela et ma ñëw ci Ablaye Wade daal ne ko mais maître mu ne ma ah ma ne ko man je suis prêt euh, vous accompagner parce que ni ñuy defaree tali yi ak tout ça mais ça n'avance pas le Sénégal. Hmm. mu ne vous êtes d'accord ma ne ko a ah, oui mu ne ma a ah, gars ñi dañu garaaw de ma ne ko man y a pas de problème. mais sa liggéey dinañ la ci dàq ma ne ko man yàlla laa yaakaar. Hmm. c' est comme ça qu'on s'est engagé ba Ablaye Wade jël moo tax Ablaye Wade boo gisee li mu gën a réussir. Hmm. dans sa politique c' est la logistique c' est les transports. à l'heure actuelle te kooku mooy schéma bi. justement après jiite woon nga fi euh, COSEC euh, ci wàllu économie ci wàllu développement aussi ban hmm. contribution tey la ñu mun a euh, wax ni parti démocratique sénégalais ak ay ñoñam ñoom ñoo ko fi indi ci Sénégal. voilà léegi euh, bi nga xamante ne ni euh, le conseil le conseil sénégalais des chargeurs. Mm. dafa nekkoon benn euh, situation boo xamante ni parce que étant donné que à l'époque euh, l'économie était d'une manière euh, créée d'une manière boo xam ne dañuy importer lépp te tout passait par la mer mm. te on n'avait pas de bateau on n'avait rien du tout il fallait donc trouver une stratégie pour vraiment euh, bateau yi ñëw au moins ñu mën ci am une place pour que la destination Sénégal nekk loo xamante ne nii dina favorable pour ça il fallait que ñu équiper géej gi ñu moom la ñu tudd les phares et balises mu nekk loo xamante ne nii pour euh, tout ce qui concerne la luminosité de la mer la profondeur les tirants d'eau et tout ça nekk quelque chose boo xam ne bateau yi bu ñuy ñëw dinañ am accès et lu ñuy gën di bari automatiquement sa euh, euh, nu mu tuddati bateau ceeb def quarante mille tonnes ça coûte plus de cinq milliards mais bu ñu maîtriser le fret automatiquement ça pose des nu mu tudd dinañ ko mën a régler c'est loolu moo nekk à la base de la création des conseils sénégalais des chargeurs pour que ñu mën a aider les importateurs pour que ñu mën a am accès sur les produits à un coût ko xam day am répercussion au niveau des populations mmh. voilà donc dans un premier temps ce que nous avons obtenu de l'autre côté les syndicalistes comme un, un homme Et ils ont créé un système de l'enseignement. Parce que l'enseignement que, euh, comment dirais-je, Ablaye Wade préconisait, du woon même système bi ñu am dañu ne woon xale bi bu fekkee nekk na euh, sixième ñu encadré ko ba CM2. Hmm. automatiquement buy dem troisième dañ koy créer benn système boo xamante ne ni sur le plan technique dina ko mën a def c'est-à-dire bu fekke mënul def étude am yi ba troisième. Mhm. ñu arrêté ko fa dugal ko dans les formations professionnelles. professionnelles sortir comme maçon tu sortir comme électricien. Mhm. ainsi de suite ainsi de suite comme ça. Euh, dina wuteeg jàngu bi xam da ngay jàng ba am bac. doo am métier doo xam sax ni ñuy wiise boulon et tout cela. Mhm. voilà le système bi ñu utiliser woon te kooku c' les enseignants dirigés par Ibn Diouf ñoo ko bàyyi qui était à la base. ñoo ko théorisé woon mais lu tax loolu doxaluñu parce que xam nga Abdoulaye Wade a pris euh, le pouvoir très tard. Hmm. tardivement. en 2000 bi ko jëlee tardivement on n'a pas eu le temps de pouvoir réformer tout ce système là bi muy jël pouvoir bi y avait tellement de dysfonctionnement sur le fonctionnement de l'État et tout cela donc euh, sur euh, les transports. mu amoon yeneen priorité daal. amoon yeneen yooyu la la la la la hmm. il n'a pas eu le temps malheureusement il n'a pas eu un troisième mandat. sinon il allait donc euh, créer beaucoup de choses kon du ñu am terre bu taxaw. Mm. ak euh, beaucoup de choses yoo xamante ne nii. les populations qui se déplacent difficilement quoi. Mm. Euh, alors ñu delluwaat ginnaaw tuuti. ci événement yi nga xam ne dund ngeen ko sànq lim nga yoo xam ni xëy na imputé nañ leen ko à tort. alors mm. dund ngeen certainement affaire maître Sèye ak président Wade loolu itam da jàpp ne ku monté la woon. wala mais affaire Babacar Sèye bi. man euh, yàlla daf ma daf ma dimbali. vous savez parce que lu xew rek en tant que cadre dañ naan Cheikh Touré la sëgam sur le plan logistique nee nañu c'est des termes de guerre donc affaire u Babacar Seye bi bi muy am euh, yàlla dafa def état de jeté au ministère de l'équipement y avait un logiciel sur les transports bu génnoon et on devait faire un stage au niveau du Canada léegi nag ñu retardé woon boobu finalement bi élection yi jeexee mercredi bi ci topp laa dem Canada pour def formation bi hmm. mais bi ma demee Canada pour def formation bi le samedi la ñu assassiné maître Babacar Seye. ah, ah laa fi jóge le samedi ñu assassiné maître Babacar Seye léegi nag ñoom ils n'ont même pas cherché à comprendre dem leen jëli Cheikh Touré. booba boobu maa ngi Canada. ñu joxe ay ñu ñëw sama kër fekk fa sama jabar et la famille ana Cheikh Touré fu mu ne kooku ne leen dem na Canada depuis mercredi c'est pas vrai moo bokk ci ñi nga xam ñoo assassiné Maître Baboucar Sèye mën nag la kii ma nga Canada bu ngeen téléphoné woon ma nga ne ambassade ci la ñu nag defee euh, kii international laajte et tout ñu laaj France France ne leen kii mercredi la nuit il est passé par là et euh, jeudi matin il était commandé au Canada ñu laat ne ah bon foofu nag la ñu la ñu perturbé woo ils n'ont même pas cherché à comprendre léegi nag il fallait qu'ils trouvent nag euh, quelqu'un boo xamante ni émanant du PDS comment pour dire que ni ce gars-là moo rey Babacar Seye bon léegi nag c'est pour cela ils ont euh, torturé des modici mu indi ay difficultés mais sinon su ma nekkoon Dakar kon tey jii duñ ko waxati man la ñuy wax accuser ma def tëwal ma charge yëpp bon léegi nag man je pense que ni un homme comme Ablaye Wade c'est pas ce genre de type boo xamante ne nii parce que moom il a toujours dit du marché ci ay cadavres pour accès au pouvoir mm. c'est pas le genre de type boo xam ne day comploter pour des attentats et tout cela donc l'affaire là c'était quelque chose de créé par le parti socialiste c'est à ce niveau là la ñu mën a mais finalement étant donné qu'ils avaient le pouvoir ainsi de suite et tout contourner situation bi et tout cela donc euh, maître Babacar Seye je ne peux pas accuser keneen. Mhm. mais mën naa seetal Ablaye Wade que Ablaye n'est pas nié pour rien du tout. Mhm. parce que ils ont ils sont venus me chercher croyant que ni dinañ mën a dugal. far nekkuma fi man jàngi naa Canada moo tax ma ne yàlla daf ma suturaal. Mm-hmm. ba nga xamante ni nekkuma fi moom mais soo fi nekkoon kon tey ji tout allait tourner autour de ma tête. loolu c'est comme ça mm-hmm. euh, waaw c'est comme ça. boobu yaa nekkoon njiital cadre libéraux yi ba tey. maa nekkoon pour cadre du PDS. Mm. Euh, cadre des cadres du du kii du du PDS. Mm-hmm. à partir de ce moment. parce que ñoom euh, seen problème moo doon alkaati yi naka la ñuy neutraliser jàpp ñu sur le terrain. mais à chaque fois ñuy jàpp ay militants duñ jàpp Cheikh Touré. ñu ne mais ce gars là fu ñu <laughs> ne. qu'est-ce qu'il fait ñu joxe ordre xamuñu ne woon man dama nekkoon sama quartier général di joxe organisation yi naan leen nii lañ koy doxalee nii la ñuy defee et tout cela mais il ne pouvait pas me prendre. Mm. parce que bu ma jàppee dañ naan voilà le perturbateur. donc ça je le savais voilà ce que j'ai vécu à travers le le le. Euh, comment dirais-je la situation du PDS. d'accord léegi nag Dieu a fait que ni bi Ablaye Wade gagné euh, pouvoir kii bi mais avant ça Euh, ma nekk député à l'Assemblée nationale bon bi ñu bi ma nekkee député à l'Assemblée nationale ñu daal ne voilà kii am na léegi immunité parlementaire il faut que ñu trouver un autre malheureusement bi may ñëw euh, y avait des kàngama y a je je, je profite de l'occasion pour pour jaale leen mooy Ablaye Faye mm-hmm. Awa Diop mi génn àddina Boubacar Sall que j'ai remplacé en tant que député là vraiment c'était des hommes de de de valeurs xamante ne ils ont beaucoup beaucoup contribué à ce que Abdoulaye Wade tienne au pouvoir. Mhm. maintenant nag situation boobu bi mu amee bon mu nekk euh, loo xamante ne nii vraiment c'était très regrettable. mais je sais que ni y a eu des personnes yoo xamante ne nii au niveau du du PDS vraiment ñu am fit lañu léegi comme vous l'avez constaté xam naa dinañ ci ñëw. Mhm. vous avez vu la suite pour le PDS ni mu demee. Euh, tous les kàngam yi ci nekkoon yëpp toog nañu. Mhm. et tout ça kooku beneen schéma la boo xamante ne nii. peut-être euh, wala nga pose ma question dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw ndax PDS ba woon tey euh, bokk ak PDS bi fi nekk waaye lu ko jiitu PDS mi ngi doon dem ci ay élection naam askan wi xëy na Euh, épousé woon nañu seen euh, politique ñu bëri àndoon nañu ak yéen et tout mais bu ngeen demaan élection jafe-jafe yu rëy ngeen di am dangeen daan dem rek di ñàkk euh, est-ce que itam événement yooyu électoraux yooyu mun nga si ñëw ci parti démocratique sénégalais ak élection yi muy dund avec le le régime socialiste. wala xam nga élection yooyu il est évident que euh, tous les résultats c'était des résultats préfabriqués ministre de c'est le ministère de l'intérieur bu ngeen demee élection au moment ngeen di dépouiller ñu commencé di wax résultat yi Jean Collin di commencé joxe résultat ñoom ñuy joxe résultat yoo xamante ne qui n'ont rien rien à voir avec des trucs am na man fi ma nekkoon à Grand car ñuy siéger euh, pare gu ñu siège sax ñu naan Grand Dakar tant de qui et tout ça il toutes les victoires étaient préparées loolu moo tax bu résultat yi génnee mais xeex bi ne parce que correspondre ak ak ak réalité donc on n'a pas jamais perdu des élections parce que en fin de compte euh, moom ci ci kii bi la basé wu woon ci euh, comment dirais-je à l'intérieur du pays ay Fouta ak yooyu te ñooñu segam y avait des problèmes de démocratie et euh, au niveau de Dakar donc foofu it c'était la même chose dañuy jël kenn rek benn chef de village ñëw toog ca fi ñuy voté boo ñëwee mu ne la jëlal bii jëlal bee jëlal bi ainsi de suite loolu la kon lépp daal mën nañ ko wax mais du woon ay élection yoo xamante kii ne Ablaye Wade compte tenu de ni mu taxe woon ak population bi ko topp ak son programme et tout cela mais sénégalais yi dañ ci adhéré d'une manière boo xamante ne nii mais bu ñu demee élection on voit le contraire xeex bi ni kur mu nekk loo xamante ni incident la boo gisee nag ñu dem boo finalement euh, ñu Euh, wax Ablaye Wade da ngay ñëw dugg ci gouvernement bi mu nekk euh, une situation c'était pour calmer parce que les occidentaux qu'on le veuille ou non ñoom seen intérêt gi si donc il fallait ñu intégrer Ablaye Wade pour ñu def ay gouvernement euh, élargi et tout cela voilà la situation mais le peuple sénégalais avait tourné de dos le euh, comment dirais-je le parti socialiste mais avec euh, la complicité des pays comme la France nga xamante ni c'est leur intérêt lañ ci doon doxal Donc, euh, on ne pouvait pas accepter mhm. euh, par la démocratie, par les urnes, euh, quelqu'un ñëw jël pouvoir bi parce que ça va être tâche d'huile mhm. au niveau de l'Afrique et il risque de perdre beaucoup de choses. Mhm. Voilà le schéma. Donc, on peut tout dire parce que lu nekk def nañ ko fi defar nañ ci ay ay système yoo xamante ni ni ñu doon voter et tout cela loolu daal nekk na loo xamante ni je demeure convaincu que Ablaye Wade a toujours gagné les élections mais le PS a toujours fraudé. Hmm. et donné des résultats avant élection yi di génn. lan moo daan nekk réaction président Wade ci yooyu jamono xëy na. Euh, Ablaye Wade génération wu tey yi fekkewuñu yooyu épisode. voilà Ablaye Wade daal balaa hmm. muy gagné élection ba ñu dem résultat yi. Hmm. nee naa la yi ñu ngi wax avant élection ba avant élection ba avant urne kii ah, ah. bureau de vote ah ñu commencé yor seen liste. élection ñu ngi élection de à partir de seize heures dix-sept heures ñu naan fee kii gagné na kii gagné na temps di joxe pourcentage lu ne bon li leen jàkkaloon nag en quatre-vingt-huit j'ai été nommé comme euh, comme directeur des opérations léegi man ce que j'avais fait mooy dañu créer woon benn salu informatique boo xamante ne nii euh, dañ daan centraliser tous les résultats à travers comment dirais-je le Sénégal mais il y avait pas de portable ce qu'on faisait mooy numéro téléphone yi dañ leen recenser militant bu am numéro téléphone rek euh, seen kër am téléphone. dañ fay teg kenn dañ fay teg kenn. léegi bu ñu paree ñu daal di ne ko bon Casamance ñu lan lañ fa gagné mu ne bureau tel bureau tel ñu jël yëpp amoon nañ logiciel boo xamante ni day génn ci affaire mais bala minuit huit heures du mois du matin. Hmm. on pouvait donner la les tendances. mais ñun fa la ñuy fekk ak suñu ordinateur ak yëpp yóbbu prison. Ah, ah oui. ci ci yan base fu ñu koy teg. pourquoi ngay joxe résultat yoo xamante ni te ministre ministre de l'intérieur jox nga wu ko. Hmm. ñun leen mais ñun on a notre centre. qui nous permet de donner voilà les gens. toj suñuy ordinateur mais lu nekk daj nañ ko gaaj. loolu nag mooy mooy mooy situation bi nga xamante ne nii si on dit que ne Ablaye Wade dañ ko doon gagné. kooku musul taxaw. fraude lañ si nekkee woon. avec l'appui des puissances. Et comme je vous l'ai dit, c'est les Américains qui ont inventé le sharing power qui permettait de dire sëgëm ñi am nañ vingt cinq pour cent kon vingt cinq pour cent yi dañ leen di dugal ci gouvernement bi. ñu hmm. mu nekk quelque chose boo xam pour stabiliser dëkk bi. Hmm. voilà la situation mais ñoom la démocratie ne les intéressait pas du tout. kon looloo indi woon président Wade malgré situation yooyu xëy na mu jot a dugg ci gouvernement Abdou Diouf. ak voilà euh, loolu la loolu moo taxoon mu dugg ci. Hmm. te bu ci duggee ba xam ne élection ñëw na rek day day day day échappé wu dem hmm. mais ne il faut le dire bien vrai que Abdou Diouf Euh, euh n'était pas démocrate du tout mm. mais c'était un homme quand même ki qui acceptait beaucoup de choses hmm. bu fekkee ni wax nga ko dëgg moo hmm. xam ne lii dëgg la il l'accepte c'est différent d'un homme politique boo xamante ni da nga koy wax mu non seulement mu contredire la ba pare mu xeex la loolu c'est c'est vraiment très grave mais Abdou Diouf a accepté beaucoup de choses et beaucoup de choses yu ñu obtenir woon de haute lutte lañ ko doon am mais à chaque fois day accepter un code électoral ñu accepter ko ainsi mu nommer des hommes yoo xamante ni créer système électoral yooyu yëpp da ko doon accepter mm. mais malheureusement avec l'arrivée malheureusement de Macky Sall euh, tout est tombé à l'eau c'est ça ah le du problème ah oui tout est tombé à l'eau parce que en fin de compte Euh, man euh, ce que je reproche c'est vrai que Macky Sall euh, quand il a au niveau du au niveau bi am au niveau Assemblée nationale nekk loo xamante ni nii bon Macky Sall quand il a constaté ça ñu accusé ko Macky yow ya def li yaa yaa convoqué Karim Wade te Karim Wade fi mu nekkoon ça dépendait de la présidence. Mm. te eh, Macky Sall xam nga c'est un homme qui ne lit pas beaucoup. Hmm. dafa signé document ba bi ñoom euh, kii ñes numu mu tuddati bi bi Iba Der Thiam defaloon ak euh, l'ancien président de l'Assemblée nationale Mamadou Seck. Hmm. pour que tous les directeurs. ban ko joxee daf ko signé. te mais léegi nag daf ko sax daf ku jël rek signé. bon moom c'est comme ça quand il te fait confiance il ferme les yeux. ah léegi nag ba mu demee nag Karim dem ci papa ji daal di nekk ma de a m'a convoqué à nationale Ablaye Wade woo Macky en tant que président de l' assemblée ne ko waaye yow lii nga wax nu mu demee. ba hmm. léegi Macky Sall ne ko man dama def erreur. il n'a pas tenu compte de cela c' est à partir de ce moment ci le problème mu Macky Sall yëpp hmm. ba ni mu quitté PDS ah, ah bi muy dem ànd ak les les nu mu tuddati Lo ainsi de suite ñoom ñëpp ñu ñëw créé beneen euh, APR. mais gis nga lu mu leen jëriñ tey jii ñoom ñëpp ñu accompagné woon Macky Sall ñoom ñëpp sont devenus maintenant des gens yoo xamante ni presque Euh, on les a relégués au second plan. Hmm. nekkatuñu dara. yow miy jàpp bokkoon nga peut-être ci ñi doon jàppale Macky Sall à un moment donné ndax les amis de Macky Sall. yaakaar naa ne kuréel googu bokk nga ci ñi ko samp. voilà euh, kooku ni mu demee. madame. Mhm. bi nga xamante ne ni léegi dem nañu ba finalement euh, ñu constaté ni Ablaye Wade gagné na euh, Macky Sall gagné na. waaw Ablaye Wade a donné des instructions ne ne ñëpp jàppale Macky Sall. Mm-hmm. bon man. 2012 sax 2012 man sax j'étais euh, conseil conseil spécial euh, quand Macky était à la primature mais j'étais un peu malade moo taxoon kii wu ma woon. Ablaye Wade bi ko defee Macky Sall nag jël pouvoir bi bon ñu daal di nekkoon ñun non sëgëm Ablaye Wade wax na nañu lii nañu dem jàppale euh, Macky Sall ah ñu am rendez-vous ak moom bi mu ñëwee. ñu ne ko léegi le problème qui se pose mooy c'est une chose gagner les élections mais conserver euh, comme le pouvoir c'est autre chose mm -hmm. tu as beaucoup de collaborateurs mais ñi nga nekkaloon parce que Macky Sall bi ma nekkee coordination des cadres la nekk la la ñëw la ñëw la ñëw euh, la ñëw ci coordination des cadres ma accepté ko au départ au départ sax je l'avais pas accepté c'est pression pour ma accepter lu taxoon accepté parce que était étudiant terminé wul woon ay études waaw sa ñoom terminé wu loon étude am. te yow ay cadre nga war a jiite. ay cadre yu ba pare ba pare lañ ci yoon. Hmm. après Ablaye Wade ne ma wee yow. nag wu ñuul boo ci amee. <laughs> Euh, soow mu weex ko jël ma ne ko tu as parfaitement raison. après nag euh, c'est comme ça que Macky est venu am diplôme après ñuy collaborer mm. ainsi de suite et tout cela. d'accord bon saa yu jógee rek ma ko Macky mu ne ma ah ma ne ko tey jii de fee la ñuy dem fee la ñuy dem y a les policiers et tout mm. ça maa ngi la affecté fële ak yooyu mu naan ma seex yow bu nga <laughs> nga may affecté <laughs> fenn man ni ko alkaati yi dañu mën a xeex et tout cela tu comprends ñu négocier ba finalement euh, man c'est un garçon dama ko yërëmoon quoi mm. parce que euh, il était tellement calme te ça te bu tiitee day kii ak yooyu mm. ma xaw ko yërëm jàpp ko comme sama rakk quoi muy ñuy évoluer muy ñëw kër ga ainsi mais ñu des ba tey ci parenthèse bi ñu ko jàppee woon ragal ak euh, ku yox yox yëpp tey am nañu mbetteel ndax Macky Sall il se montre un vrai guerrier te daanaka li mu diggoon opposition bi yëpp euh, def na leen ko non non moom nag xam nga guerrier euh, ñun ñoo ko mën a wax hmm. waaw guerrier ñun ñoo ko mën a wax parce que guerrier day fekk yow nekkoo ci dara hmm. xamoo dara hmm. tekki woo dara ba pare affronter les forces de l'ordre ñun ñoo ko mën a wax waaye doo dem ba am doole Sénégal yëpp doole monde bi yëpp attaquer say opposition et tout ça ñu naan am na fulla wala amul fayda. kon du guerrier du guerrier nga bëgg a wax. non non non du guerrier du <laughs> moom vraiment du du du sur ce plan là on hmm. peut mais léegi nag ñoom yor na doole jeeg hmm. yooyu. man li ma ko xaw a kiiwee rek man xam nga man aw ma problème. Hmm. parce que problème bi ci nekk dama dama jàng ba am sama troisième cycle. ñëw dugg ci administration bi. bi may def administration bi ma ñëw dugg ko ko euh, man je président de l'ordre des kii de la section maritime de l'ordre des experts ordre des experts pour nga am fa il faut nga sa doctorat c'est yëpp nga évoluer mm-hmm. bi ma bi ma bi sax je continue j'ai ouvert mon cabinet vu mon âge et je continue à gagner ma vie kon xam nga aw problème yooyu mm. problème ñi ko am mooy ñi nga xam ne politique la ñu jëf tekku seen bopp mm. ah amuñu métier amuñu dara kon bu jeexee jaral na leen rey seen bopp rey seen maam et tout cela. d' mais léegi lan moo indi nga ànd ak moom ci. Euh, les amis de Macky Sall. voilà mu yàgg nga daal di. Euh, voilà léegi li taxoon nag hmm. waaw li taxoon mooy deux choses. Hmm. bon bi nga xamee ci jël nañ ci nga si génn ci laa bàyyee. depuis lors nekk ci sama cabinet di évoluer loolu moo ñu indi problème bi. d' accord loolu parenthèse la woon. ñu ñu dellusiwaat waaw. mais sinon euh, c' est c'est un jeune frère bon li koy dal bëgg naa jàmm di ko dal. Mhm. parce que en fin de bu ko bu ko dalal leneen dalee aussi dañ naan bon yéen nekk ndoo woon sa xarit la xam nga yaa ngi nii. waaw li ma wax daan cercle des nekk xam nga mënu ma cee génn sans bopp. <laughs> waaw donc man su ma sañoon muy gën di réussir. mais mhm. doon bëggoon naa daal dialogue bi gën di évoluer parce que lii lii du yàgg daal. Mhm. Euh, voilà voilà tey situation parti démocratique sénégalais parti boobu ñuy waxtaanee tey. Euh, ñu bëri jàpp nañu ni Macky Sall situation mu nekk tey moom moo ko causé ndax ñu bari ci ay euh, njiitam wala ay kàngamam ci traque des biens mal acquis bi leen faagaagale ñeneen ñi daal di daw transhumé ngir mun a rëcc xëy na si prison ak yenn tracasserie yi nga xam ne régime bi mu ngi leen ko doon def tey situation wu PDS est-ce que yow gis nga ni loxol Macky moom kenn mënu ko ci génne. jafe-jafe yi parti bi toll tey kenn dégg nga xam nga ñëpp mënoon nañ xalaat ni Macky Sall ni muy doxalee hmm. Macky Macky Sall il n'est pas pour ça kenn xalaatul woon ni nii la mel daf ñu bett sur toute la ligne toute ah la ligne personne ne comprenait bon euh, léegi euh, li ci nekk ba nekk ci au départ pour comprendre le comportement de Macky Sall à l'heure actuelle il faut le dire euh, Ablaye Wade moo jékki-jékki sacrifier tout le monde pour del doom ji teg ko ci kaw. Karim. Karim loolu mooy problème bi te il avait donné toutes les possibilités pour que ki ko war a remplacer daal mooy euh, comment dirais-je Macky Sall parce que Idriss Seck sa ngam il était trop bouillant trop bavard donc euh, Macky euh, Ablaye Wade ne lui faisait pas confiance mais sa ngam kële de l'autre côté il était plus calme plus docile donc kooku la gënoon a wóolu daal mais à la dernière minute Euh, Ablaye Wade def son choix sur Macky Sall ba pare nag faagal ko kiiwal ko ñàkkal ko fayda et tout cela te. fekk jox na ko tous les pouvoirs et tous les moyens. tous les pouvoirs les pouvoirs mu dugg ci administration maîtriser lépp. Hmm. ñu foogoon ni mooy jël relais bi. mais moom automatiquement euh, Ablaye Wade n'a pas n'a pas n'a pas fait ça il a préféré le combattre et tout cela mais Macky Sall ne pouvait pas faire autrement loolu fayu bon euh, moom tamit kii ko mais Macky Sall. yow comprendre nga ripostam ak ni mu faagaagalee PDS. mais daf ko ëppal dafa ëppal nag. Ah. parce que ni mu ko faagaagalee. Euh, mënoon na ko def d'une manière boo xam plus diplomatique. te du rompre relation ak Ablaye Wade mais ñëw tëj ay Karim Wade file tëj waa PDS yi fii dugg kooku dafa ëpp. il ne devait pas se comporter de cette manière. Hmm. loolu moo indi situation conflictuelle bi ñu nekk. mais mënoon nañ c'est vrai il a subi il a obtenu avantage u kenn amul li mu am PDS ak loolu kenn amu ko mais en retour même bu Ablaye Wade defee choix sur kenn booy booy agir da ngay agir d'une manière modérée. Mm. comprenez amoon na technique bu mu doon jël en tant que président de la République négocier Karim PDS continuer moom dafa préférer attaquer leen affaiblir leen tëj ni leen et tout cela foofu mooy li mu li mu li mu def. Hmm. mais au départ effectivement. dañ ko tooñoon mais ni mu agiré mu ëpp par rapport ak fayu bi daal moo ëpp. bi moo ëpp moom. Mm. ëpp na trop. ba pare nag ñëpp ñu toppoon ci moom mu multiplier leen par zéro ñu amul métier. Mm. nekk politique tekkeetuñu dara ñu ngi ci difficulté yu dul jeex yu dul jeex ñu ngi ci. man même ñun ñi nga xamante ni yàlla dimbali woon nañu ba ñu nekkoon ci dara am ci tuuti kii mais li ñuy daj kenn xamul bu tabaski jotee korite yëpp dañuy sonn. Mm. vous comprenez mais law tool yëpp dafa nekk loo xamante ne nii rafetul daal. d'accord waaye am na ñuy wax ne euh, parti démocratique sénégalais moom ma ko samp président Ablaye Wade moo ko yàq est-ce que nangu nga loolu. waaw moo ko yàq parce que yàq bi mu yàq rek mooy xam nga nit du mag. Mm. mooy doom ji mu jël nga xam dafa nekkoon xale suñu biir. ñu koy yóbbu école muy jàngi. man maa ko njëkk ma Karim maa ko njëkk wutal ay ordinateur mm. mu dem ba ci digg bi Euh, je vous donne un exemple. Hmm. xam nga la programme bi nga xamante ni mooy programme routier du Sénégal. Hmm. ak infrastructure yi. dossier bi kam ñun ñoo ko liggéey. les cadres du PDS ba indil ko Ablaye Wade. Hmm. mais ba muy nommé Karim la nommé lépp lu ñu réaliser ci routier yooyu mu ne Karim a ko def te Karim c'est un financier. vous comprenez. Hmm. loolu je ah, doon jël seen liggéey daal moomale ko Karim Wade. moo pour jox ko turu gën te loolu da doon frustré. affaire frustré woon nañu mais man pour man euh, man damay jël li fi quoi man l' essentiel est que li ñu réaliser li ñu li ñu xalaat ñu réaliser ko. Hmm. kii moo ko def wala kële moo ko def kooku c' pas important. man loolu moo doon sama chemin. ku nekk xam nga li nga si def. ko li nga def Sénégal toll na foo xamante ni loolu amatul solo. Mm. dañu bëgg mu nekk un pays boo xamante ni inimaginable. heureusement barke Demba j'ai un ami guinéen bu nekkoon kii nee na bi mu ñëwee Sénégal ni mu gisee infrastructure yi ak ni mu développé woo nee na vraiment il est très content. Mm. ma ne ah kon boobu mag yi yoon bi Abdoulaye Wade nekkoon pour les infrastructures mu ngi ci quoi génn ci. Mm. parce que pas eu le temps de faire le Sénégal pour constater ça. Mm-hmm. donc voilà la situation loolu moo ci nekk. tey ban avenir nga gisal parti démocratique parti démocratique sénégalais vraiment euh, dafa nekk loo xamante ni nii tant que Ablaye Wade ngi dund. Hmm. ni ñi mën nañ ko russer quelque chose. le fait que Karim aussi nekku fi dem na parce que ñu bari dañ ko weddi. Hmm. d'un d'un premier temps. léegi daal je pense que ni daal après Macky Sall. Hmm. bon euh, bu fekkee Macky Sall mu ngi koy empêcher mu dem. peut-être Karim dina jël peut-être pouvoir bi mais peut-être dans dix ans ou quinze ans parce que il est jeune quand même. d'accord. alors loolu mhm. yow euh, ñu delluwaat tuuti ginnaaw 88 nga dugg ci parti démocratique sénégalais ana kañ nga ci génn ak lu waral nga génn ci. voilà man li mu tax ma génn ci en 2012 bi Macky Sall gagné. Mm. après ñun ñëpp Abdoulaye Wade daf nu libéré parce que j'étais Euh, ministre conseiller quand même de Ablaye bi mu nekkee foofu bi mu jógee ci Macky Sall ci moom nekk président la bi Macky Sall euh, gagné ñëpp dañu libéré conseiller Ablaye Wade yëpp ñu libeere leen bon segam libéré woon nañu te man euh, sama heure retraite jotoon na ma daal nekkoon négal ma dem dellu dem redynamiser sama cabinet d'expertise bind waa ordre des experts ñu accepter encore euh, sama reprise et tout mm. ma ñëw nag ubbi fekk yàlla defoon na ma ma am kii ma ubbi un cabinet nekk dans l' expertise man loolu moo tax ma ma ma ma laa di ñu génn ñu def approche auprès de lui pour l'aider et tout faale wuñu mosul wax ak ñun toppatoo wuñu ah nit ku ci nekk nag da am fulla man ma continuer sama liggéey di évoluer mm. moom mu continuer li def mais xalaatoon naa ni am na yu bari yoo xamante ne nii bu fekkoon ni accepté woon na ko le problème ne se pose pas dina mën a réussir beaucoup de choses. loo hmm. le fait que également ñi ko accompagné woon yëpp ay Alioune Badara Cissé ay euh, Moustapha Cissé Lo ay ñoom ñëpp amul ñoom ñëpp ñu relégué leen au second plan aussi loolu dafa nekk loo xamante ni c'est pas bon boo tax aujourd'hui euh, avec les élections bon euh, yii ñëw dina poser problème. parce que léegi bëgg na troisième mandat te troisième mandat bi ça va être très compliqué. Hmm. te même bu fekkoon engagé woon na troisième mandat sax kan moo koy jàppale. dina doy waar voilà la situation maintenant nag étant donné que l' administration moom daf ci nekk ak yooyu yooyu bon te mën nañ contourner les résultats loolu mais niveau de prise de conscience des Sénégalais aujourd'hui nekk na loo xamante n'est pas favorable à Macky du tout. Hmm. d'accord am na ay tànki jàmm yu am solo sax yuñ doon dox diggante président Abdoulaye Wade ak Macky Sall ngir ñu juboo am na xëy na ay pas yi ñu jotoon def waaye yëf yi dafa mel ni lu taggatémbe est-ce que am nga yaakaar ci boobu dajaloo diggante président Wade ak euh, Macky Sall. non non xam nga enjeu bi mooy poser problème. Hmm. parce que ku mel ni le khalife général des mourides woo leen dugale leen def li muy war a def. Hmm. lépp. Macky Sall gunge ablay Wade ba këram dellu cabinet Ablaye Wade ni mu ko magee ak li mu def yëpp mu bàyyi yëpp ñëw fekk si Macky Sall hmm. waxtaan ak moom et tout cela léegi ba tey fii ñu toll Macky Sall jëlul tànkam dem seti Ablaye Wade loolu dafa nekk loo xamante ne nii vraiment euh, jaaxal na Sénégal yi te ñu bari accepté wuñ ko hmm. vous comprenez à tel que ak jubaale bi nu mu mënti mel Ablaye Wade wii son âge mën na ko baal mën na continuer mais defe naa PDS et jeunes ya fa nekk et tout cela pour ñu accepter loolu day poser problème mm. moo tax pour moi. amatuma euh, yaakaar daal si retrouvailles yooyu amatuma ci retrouvailles parce que problème de confiance la te qu'on le veuille ou non Macky a raté le coche parce que bu doon man du ma doxalee noonu. Mm. dinaa fexe ba kii nga xam ne suñu papa la jox ma lépp. ah da sax dañ koy wax ki lay jàppale ba nga toll ci moom parce que mm-hmm. yàlla bu lay may un million yi du ko awalee directement ci sa loxo mm-hmm. da koy am fu mu koy awalee jox la ko yàlla mooy ñëw jox la ko directement mm-hmm. mais ki nga xam ne am na confiance ba àggale euh, volonté boobu mais da nga koy jox cër waaye boo jëlee doomam tëj koo xamante ne am na quatre vingt quinze ans xaw ma quatre vingt dix huit ans benn doomam rek la am ah tey nga nga tëj ko ba pare day nekk loo xamante ne ak doom ni mu jege buumu xol. Mm-hmm. tu comprends day nekk loo xamante ne nii vraiment euh, du neex lijjanti. Mm-hmm. moo tax daal man euh, je suis très sceptique ci jubóo bi te li ma doon su ma doon moom yàlla jox na Macky Sall euh, tous les pouvoirs mais yàlla xam nga de day able rek. Mm-hmm. waroon na daal approché wu bala balaa Abdoulaye Wade yàlla def leneen. Hmm. mu am ñaanam. Hmm. mën a rectifier balaa muy trop tard quoi. diggante Macky Sall ak Karim Wade itam gisoo ci benn possibilité de retrouvaille wala réconciliation juboo seen diggante. pourtant hmm. amoon nañu benn proximité ñu ne. voilà léegi léegi xam nga en politique dafa am loo xam ne on mënul wax ni nii la demee wala nii lay kiiwee mënul ne. tey si Macky Sall euh, très bien. amnistie ñu ngi koy wax waaw mhm. ni mu def ni mu def ak Karim Wade. ni mhm. mu ni mu wax ni mu def ak Idrissa Seck. Mhm. ak Idrissa Seck li mu ko yàq yëpp. waaw fi ñu jaar ñoom ñaar fi ñu jaar yëpp ak fi mu nekk yëpp ñu ñoo ko mën a vivre parce que ñun ñoo fi nekk parce que Macky Sall il faisait partie de la coordination des cadres que il faisait partie des élites ainsi de suite lu nekk la ñu woon. Euh, Idrissa Seck c'est dem ba mën a là je pense que ni tout est possible dafa yaakaar ni nag euh, Macky Euh, Karim Wade mënul vivre situation bi et tout dépend ci élection yi di ñëw bu fekkee Macky Sall euh, bàyyi na keneen ñëw ah mu bañ a présenté wu là je peux dire que ni jubóo du am mais bu fekkee ni nag discuté na ak Karim Wade ba ñu accord ci kenn ne ko dinaa la jàppale sur telle chose kooku peut être jubóo dina mën a am foofu te pape dina mën a d' ci loolu. ëllëgu PDS itam dafa mel ni lu xaw a tegu ci loolu ndax tey lu ñu mun a wax PDS moom Karim Wade moo koy doxal nee nañu depuis Doha ak i message ak ñoom seen. voilà doon new fi waaye moo koy doxal. PDS itam yaakaaroon ne ëllëgëm yëpp mu ngi aju ci loolu. waaw léegi xam nga euh, que Karim Wade melul ni papa te nuroowul ak papa ah, ji. ci naka. Karim Wade am na benn jour. xaw ma kan moo doon wax ah Cheikh Touré ngi nii mu ne ah Cheikh Touré c' est l' ami de mon père. Hmm. l' ami de mon père c' que qu' est signifie mooy kii sama tangu papa la woon. Hmm, génération beneen la. man man beneen génération la. te noonu la loolu la woon ñëpp ñi ko wër yëpp loolu nag naka lay évoluer hmm. bu fekkee sa papa ñu nekkoon moo tax tey jii mais c' la demandade au niveau du PDS ñu ancien dem nañu. moom Omar euh, Omar Sarr la tudd xaw ak Babacar Gaye ak yooyu. daw nañu ñoom tamit ba ñu demee gis nga Macky ni mu leen def kenn déggatu leen fenn xëy na peut-être euh, kii mais kenn déggatu leen fenn donc loolu mooy mooy mooy situation bi. Hmm. maintenant accord bi bu mënee am maki Sall excusez wu auprès de Ablaye Wade ba pare dem a rattraper mu defoon par rapport ak Ablaye Wade ak euh, Karim Wade peut-être jubóo dina mën a am. mais jubóo bi fu muy fu muy amee problème intérêt Idriss rek ak intérêt Karim Wade ci bokkul hmm. léegi naka la ñuy considérer léegi nag man li ma wax mooy en tant que euh, des libéraux hmm. te Ablaye Wade nee na woon war ñu vivre plus de cinquante ans ça aurait été très bonne chose hmm. ah, ñu jéem xool naka lañ koy lijjante mais xam nga en dehors de ça y a des problèmes personnels yoo xam ne dangay waaru Macky Sall il est entouré de trotskistes des gens comme Mahmoud Saleh qui ont pris des pouvoirs yoo xam ne kenn xamul nu mu toll. Hmm. est-ce que dina d'accord ci loolu et ainsi de suite donc c'est très compliqué te affaire troisième mandat bi dina nekk loo xamante ne nii euh, déchirement bu mag dina ci am te vraiment ce serait pas euh, euh, euh, comment intéressant parce que man li ma sañoon ki nga xam évoluer ak moom bi ñuy takk jabaram yëpp nga nekk fa mbokkam yeeg yëpp ngeen xamante bu baax a baax da ngay ñaan yàlla même bu fekkee ni wërsëgam nekkul sa loxo hmm. defalu la dara parce que man yaakaaruma ko ba may am moom amul kon boog ku mel noonu ni nga xamante ne moom da nga bëggoon mu continuer mais mu dem ba nga xamante ne xam na ne nag Sénégal nii la war a demee mu joxe yëf yi dans de bonnes conditions mm. daal di ci génn comme ça y a amatul dara leen lu muy xëcc lu dul ainsi de à moins que intérêt yi nga xamante ne nii amoon na ko ak dans la famille et tout ça peut-être amul kenn koo xamante ni dina ko mën dina mën a jël relais bi mais bés bu amee kenn ku mën a jël relais bi mu wóolu ko je pense que Macky Sall va se jërëjëf euh, Maître Cheikh Touré ñu ngi lay gërëm bu baax a baax amoon mbégte dalal la ci démb ak tey doon waxtaanee jaar-jaari parti démocratique euh, sénégalais li lay taal waxtaan wi di anniversaire wu parti boobu ñu créé woon 31 juillet 1974 xëy na bëri na yeneen yu ñu mun a wax waaye ni ñu koy waxee liy duuf ci nag bi xajul ci cin bi dañu yemale fii waxtaan wi ba beneen fàttali ni yow nekkoon nga euh, coordonnateur cadre libéraux nekkoon itam ci biir parti démocratique sénégalais kàngam jiite woon fii itam lu mel ni ni euh, kon euh, COSEC di conseil sénégalais des chargeurs jërëjëf Maître Touré. waaw nga may ma rek tuuti ma tàggu suñu auditeurs yi. waaw ñu ma àq nag parce que man dama nekk koo xamante ne nii dëgg fi mu nekk rek. ak li may xalaat damay waxee xol mm-hmm. du ma di boole ay lieg mm-hmm. xam naa li ma wax nag peut-être am na ñoo xam ne du leen neex wala mu naqari leen mm-hmm. ñu bañ ma ko jàppee xam ne nit rek laa damay def erreur aussi ñu nekk loo xam dama doon jéem rek leeral Sénégalais yi di leen gërëm di leen sant te di leen wax tamit seen antenne bi seen rajo bi yàlla na ko yàlla gën a dëgëral parce que ñu am solo ngeen de am seen i télévision seen satellite yëpp